mu ne al waxtu waxtu al muxtaar war ñu di tànn li zuhri ñeel tisbaar min zawali shams mi ngi tàmbalee ci jant ko jant bi li aaxiril qaamati ba ci mujj qaama nga tisbaar waxtu woo xamee ne jant baa ngi toll ci suñu digg bopp xam nga du tee ker gi dana des du jeex tàkk su fekkonte ne dañu nekk ci xattul istiwa équateur am na bis boo xam ne jant bi day jaar ci suñu digg bopp képp boobaa dootoo dese benn ker bu kii jotee bu bu bu zénith maanaam bu nekkee zénith bu kii jotee bu digg bëccëg jotee dootu des benn ker fudul foofu nag ak ci fudul boobu zone rek jant bi même su nekkee ci digg bopp it da nga dana am tuuti ker ker googu lañ tudde zillu zawal nga xam ne booy natt doo ko ci boole dégg dafa am ker goo xam ne ah kay bu zawal jotee rek boo xoolee da nga gis ker da nga am ker ker googu nag boo ko nattee ba xam nu mu toll bu ko ëppee rek waaw foofu la ñu muy la tam tisbaar tàmbalee ba ba muy ba nga xamee ne sa ker gi tolloo naag sa taxawaay buñ nattee sa ker natt sa taxawaay ñu tolloo foofu la muxtaarum tisbaar jëm muxtaar xam ngeen ne ku amul ngànt boo liggéey ba mu jeex nga soog a julli bàkkaar nga
li aaxir xamati maanaam nu mu julli ji laa xamati xaamati mooy sa takk ndoor mu tolloog sa xaamu sa taxawaay bu ñu ko nattee takk ndoor bi natt sa taxawaay yow sa jëmm ñooy tolloo foofu la muxtaaru tisbaar yi waaw bismillah mu ne nag bi xayri zilli zawaal yi duñ ci duñ ci boole zillu zawal bi ma doon expliqué leen wa huwa te moom moom zawal boobu axru qaama boobu awalu waxtu asri mooy njaal bennu waxtu takkusaan masalan su fekkente ne natt nañ sa takk noor mu tolloog sa taxawaay ci guddaay léegi muxtaarum tisbaar jeex na muxtaarum takkusaan commencé am na lu muy bëgg a wax wala ne dañoo duggante mu ngi ci moo ci topp mu ne washtaraka lil istiraari ba ca gal ga dégg nga moom waxtu tàkkusaan ba jant bi gel jant bi du gel suuf si mooy gel xam ngeen jant bi suy fenk day gën a weex suy soo day xaw a jaune ci bët mais jant bi soppikuwul leer bi ni mu leere lumière am du changer couleur waaye bu fekkee ne mu ngi fenk xam nga day tiim fu sedd ci ñun li li ko talee foofu ba agsi ci ñun yu sedd lay doon bu nu xasee jëm nii nag lépp lu jëm nii day tàng vapeur yi suuf seeg géej gi yépp jëpp jant bi day daal di jaune fekk na jant bi jaunul li dox suñu diggante ak moom te nekk lu transparent di ko xool mooy yu yu jaune yi ba jaunir mel na jant bi moo moo jaune gën rëy dégg ngeen
atmosphère day changé daf dara waaw atmosphère bi mooy changé moo tax ñu ne dégg nga waaye wastaraka bokkaale nañ ñoom ñaar moom tisbaar ak takkusaan bi qadri ihdahuma ci kem ci kenn si ñoom ñaar kenn si ñoom ñaar ku mu mooy ñeenti rakka kon am na dafa mel dafa am ñeenti rakka yoo xam ne maanaam diggante bu ñu war a mën a julee ñeenti rakka xam nga li ma wax mel na ko tey ñaari minute ñaari minute jëm ñett mën nañ si julli ñeenti rakka diggante boobu mu ngi si biir tisbaar nekk si biir takkusaan ñu bokk ko est-ce que nag takkusaan si moo fekk si tisbaar si dugg ci moom wala tisbaar ji moo dugg si ci waxtu takkusaan moom ngeen di moom moo ciy tegu dégg nga mu ne waxal yàlla ndax fii àqil xaamati ci mujj xaama taxawaay alluulaa bi di aj dëkk te mooy ci tisbaar foofa la ñu bokkaale nga xam ne kon takkusaan moo avancé si ba fekk si tisbaar dugg ci moom lu tolloog yàggaayu fu ñu mën a jullee ñeenti rakka aw awali saniyati wala ci njaal beenu xaama ñaareel gi la tisbaar dugg si ci biir takkusaan fi la am lu war a ñeente ci siiw ci la war a ñeent ñun daal daanaka la waaw wala ñaar waaw wala ñaari minute entre ñaar trois ak ñett daal bref
maanaam li mu doon daal mooy ñoom ñaar bëggante na duggante nañu waaw am na nag ay conséquences maanaam daal ci duggante gi bu fekkee ne kii moo dugg si wala bu fekkee kii moo dugg si
boo jëmul léeg-léeg nga ma misaal dara fekk góor gi dana ko wax mu ne wàllu maxrib bi waaw maanaam waxtu muxtaar waxtu wu ñu tànn maxrib bi ñeenti bi xurubu shamsi mooy sow jant bi bu la wóoree daal jant bi dugg na yu qaddaru def na nattale ab yàggaayu moom muxtaar mi bi fi alihaa ci jëf ko moom julli ji ci diggante bi mën a julli fi julli bi baax da suro ci xaar te gannaaw ay sàkkam suñu wóoree ne jant bi moom dugg na nga jóg dugg ci wanag bi génn ñu nodd nga dugg ci wanag bi génn danga dox jàpp ñëw sol sa mbubb nga xam kabar boo nee asalaamaaleykum soo seetee la tàmbalee fa ñu nodde ba fi nga ne asalaamaaleykum bu dee nangam mi noonu la muxtaar mu timis toll loolu bu ko bu ko nit defee rek yow bu fekkee ne bi mu koy def yow yaa ngi toog jógagoo bu sëlmalee muxtaar mi jeex na su fekkee nga amuloo woon benn rakkaa léegi daru nga julli waaye julli woo muxtaar
donc loolu moom eh, li ñu mën a wax mooy moxtaar moom mën na koo xam xaw na jafe waaye ngeen mën a ko xam ci.
Waaw.
ci léegi de seetlu nga diggante- chronomètre waaw chronomètre.
léegi su fekkente ne xam na nit jant bi sona ñu dégg ki kii commencé di nodd nga daal di xool minute bi sa montre nekk bu daaneelee nga dugg ci wanag bi génn jàpp sol sa yére jublu penku liqaam julli ba sëlmal foo ne asalaamaaleykum nga xoolaat montre bi ñaata minute la nga xam ne moxtaaru loolu day fekk nga nekk di dëkk ak jàkk ji mel ni waaw fekk da ngaa jóge boo déggee nodd gi rek waaw
wala boo ko déggoon nga war a def sa kër itam.
dama nodd gi xëy na bu fekkee ne fa ñuy noddee fi nga nekk sore na son moom xaw na yéex tuuti lumière ko gën a gaaw wante euh, bu fekkee ne rek foo mën a dégg la daf lay wóor ne ba ba balee diggante ba muy agsi ay seconde yu néew lay doon ay seconde yu néew lay doon dégg
dégg nga mu ne waa waxtu wu ñu tànn lil achaa yi ñeel gee moom al ichaa mooy julli bi al achaa mooy reer bi min xurubi xumrati shafaqi mu ngi tàmbalee ca sowu xonq xonq shafaq shafaq mooy bu jant sooyee nga xool sowu bi xonq xonq yooyu ci nekk moom lañ tuddee shafaq léegi nag su fekkente ne shaf- xonq xonq yooyu set na foofu la muxtaaru mu gee tàmbale li sulu si lawali ba ca sulus bu njëkk suñ seetee guddi gi fi jant soye ak fi fajar di fenqe ñu seet ko ne euh, nangam minute la nangam waxtu ak nangam minute waaw. moom suñ ko séddalee ñett ci kii trois fois quatre douze dégg nga kon quatre quatre heures moom la bu bi jant bi sooyee ba bu fekkee ne jant baa ngi sos sept heures huit neuf dix onze heures moxtaar mu gay jeex avant approximé approximativement dégg nga mu ni wa waxtu wu ñu tànn li muxtaar li subxi ñeel suba minal fajar mu ngi commencé ci fajar bi astadiq bi aji dëgg alfajru sadiq dafa am ak alfajrul kaadib di wax tara la azana bu sirxaani waxtu woo xam ne mu ngi am ay ay lueur ay leer leer noonu muy melax tuuti nga xam ne day mel ne que boo gaawal doone biir set na fekk kileegul bu fekkente ne léegi wóor na ne fajar jot na diggante boobu la julli suba muxtaar suba commencé li lispaari ba mu set wecc ba jant bi set wecc xam nga borom risaal moom dafa wax ne ispaar ni mu ko tekkee mooy set ga nga xam ne bu waa ji sëlmale rek xool seen disku jant bi mburum jant bi xaaji bu shams noonu la ko waxee ñenn ñi dañoo misaal ne boo jàkkaarloog euh, kanamu nit ki di distance bu toll ne dégg nga euh, ay vingt mètres ak yooyu nga xam ne kanam nga xam ko dañu wax ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga jigéen ñi mu daawoon jullee ci euh, buntu jàkka ji euh, buñ daawoon jógee ci jàkka ji suba euh, koo ci dajeel xam nga xam ne ko waaye foofu la toll dañ daawoon ci xaw teel a julli
allah ala bu dee aji gën a kawe mu ni waxiya moom julli suba al wusta muy asalaatul wusta te indi al madinati
xaafis wala salaatu wa salaatu min fa al wusta bi ci digg bi wala bi gën a mag dañu maanaam daal xam nga li ñu ko wax ci wàllu insister ci xaaw tudd nañ julli yëpp ne na ngeen ci taxaw dellu tuddaat nag bii wane ne moom la ñu gën a tee war a taxawateeti maanaam yëpp lañ war a taxaw waaye daal dafa ràññikooti ni ki tanazzalul malaikatu war rooxu nga roox foofu Seydina Jibril la bi ñu nee malaikatu Jibril dugg na ñeneen ñëpp dugg mu dellu ne war rooxu ngir ahamiyee bu mu am léegi bu fekkente ne euh, xam nga l'islam euh, jàppul l'année solaire mais l'année lunaire la jàpp calendrier lunaire maanaam sanatul qamariya léegi sanatul qamariya bis mu ngi commencé ci bu jant sooyee bis bi ñu jëm léegi tey la àllarba bu jant sooyee noo ngi ci guddi alxames su fekkee ne noonu la bu jant bi sooyee ñu ne julli timis sa ngoog ak julli gee julli ba subaa ci topp eh, julli tisbaar ak takkusaan mujj mu nekk ci digg bi kon su fekkee nag dañu jàpp ne bis bi mu ngi commencé ci bu jan suba si kon buñ ne julli suba teg ci julli tisbaar takkusaan ñaari waxtu jiitu ko ñeneen ñaari waxtu mujj ko muy timis ak gee ñu ne takkusaan mooy asalaatul wusta kon ñaari wax am na ci ñi ne julli suba mooy asalaatul wusta ñi ne julli takkusaan mooy asalaatul wusta mafhum foofu maanaam lu ci war a doon atte l'islam masalan ci maanaam comme ni nga waxee dafa tey bu gën soo rek dañu guddi suba waaw waaw te tey maanaam tey sawta na xale bi dafa judd te bu muy judd mën si naq bi day dellu nga xam ne bu fekkee ci juddoo du mën a fële ko dina xam daal ci weti Day dellu.
xale bi day jëmee waaw xam nga foofu ba tey eh, ngénte dafa xaw wuute ba tey ak kooku ndax ngénte xam nga dañu wax ne ci eh, bisu juróom-ñaareel ba léegi su fekkee ne eh, masalan ki juddu juddu na fajar ban bés alxames fajar ci àjjuma lay am benn bés fajar ci samedi ñaar fajar ca dimanche boobu mooy agsi fi nga bis bi nga xam ne ci la mate donte bëccëg la ci nga xam ne bu ko seetee par vingt quatre heures yooyu juróom-ñaaram la bis boobu te fekk ba ba jant sowul rek ndax bis la ñuy ngénte kenn du ñu ngénte guddi foofu lañ ko war a ngéntee ci bis boobu comme maanaam juróom- xam nga am na ñoo xam ne dañu al yawmu saabi boobu daf leen di nax ñu jàpp ne kon bis bii nit ki juddoo buñ nee suba la lañ war a kii ndax juróom-ñaari fan ngoog ci lañ war a ngénte déedéet njóobte la bu metti ndax matul masalan ba mu juddoo am na waxtu yu passé kon matagul juróom-ñaari fan faw nag mu mat fu mu mate juróom-ñaari fan rek dañuy dellu ci bis boo woon
ak it li ñuy wax maanaam comme bisuñ génn te comme bisu li ñu fase nit des kulimaali bis bu ñu faatu fii day des kulimaali maanaam fii nag comme mel ni bisu liyaas si xam waaye moom dafa am ñu dañ ko jàll bisu daas moom aada la waaw aadama na ndax bu ma d'accord yow ci par semaine nga may fay semaine par semaine laa lay fay bu ma d'accord yow ci par ñetti weer laa lay fay ñetti weer laa lay fay bu ma d'accord yow ci par quinzaine même chose commencé waaw bu weer yu feeñee rek ci weer bi la dépendre bu weer yu feeñee bu ñu séenoo si bu weer yu war a nga xam ne bu doon feeñ waxtu woowu lay war a feeñ mooy jant so foofu la kii bi commencé ndax mooy teqale weer yu guddee bëccëg teqale bis daal
mu ni wayal wusta wa in maata lépp deen mukallaf wasatal waxti ca digg waxtu muxtaar lañ wax de bila adaayin ci lu dul joox te fekk julliwul julli bi lam ya si mooy mu suñ borom masalan bu fekkee ne mu muxtaar mi dafa jot ci tàmbali bi nit ki julliwul jortuwul it ne dana dee masalan la qadarlaahu comme accident wala yu mel noonu wala asabtal qalbi comme ko waxee crise cardiaque bon
loolu rey ko ci digg waxtu yi moyul ndaxte li des bu fi déew la mënoon na fi julli ci te ci biir muxtaar bi lay julli te njaal benn muxtaar mu muxtaar yëpp baax na moo tax mu ne lam yaasi moyul suñu borom ñu ne faaw mu ne ah illaa an yazun na ndaraw ba jortu woon na almoota dee fekkee ne nag yaakaaroon ne mën na dee doonte wóoru ko woon sax doguwu ci waaye jort na ne mën na dee rek bu dee ci digg waxtu yi te julliwul julli gi dina am bàkkaar wala fa gënu lu gën li faj ñeel aji weet mooy ku julli yow dong taqdiimu mu jiitu jiital haa julli ga ci njal benn muxtaar mooy li gën waaye waxul ne farata la mutlaqan mbir muy lu ñu doyal moo xam tisbaar la wala du tisbaar moo xam tàngu tàngaay la te xam nga doon moo xam ci risaala ñoo amma fi shiddatil xarri fa abridoo te xadiis yi abridoo fa inna shiddatal xarri min fayxi jahannam kon ñu bañ koo tënk ci yooyu yëpp ajjuma bu dul ajjuma jamonoy tàngaay lool ak jamono ju dul tàngaay lool li gën daal ci kenn nit ki nga xam ne xaajul toogul di xaar kenn ku muy àndal julli na jiital julli bi ci njëlbéen muxtaar wa moo gën ba tey jiital bi ala jamaatin moom la ñu gënal ala jamaatin ci mbooloo aaxirahu moo xam ne dana julli ànd ak ñoom ca mujj muxtaar bi mu julli moom dong ci njëlbéenu muxtaar bu dee moom nit ki kese moo ëpp tuyaaba moo gën mu xaar bu ci mujj muxtaar mu jullee ci mbooloo ak ngëneelu mbooloo bi li muy màgg màgg itam ci bopp moo ko gën dégg nga mu ni waaw fu ñuy mati aaxir waaw walil jamaati wa ba tey moo gën maanaam njaal bi muxtaar li jamaati ñeel mbooloo voilà li jamaati ñeel mbooloo kon taqdimu xayri zuhri aleykum salaam jiital dul tisbaar rek ci mbooloo mbooloo bi moom lu dul tisbaar li gën ci ñoom mooy ñu julli ci njëlbéenu muxtaar bu fekkee ne tisbaar la nag xam nga tisbaar diggante yu nit ñi noppaloo di añ ak di xëylu la sieste ak yooyu moo tax sopp ñu julli ko seen njëlbéenu muxtaar mu gaawal ko dañu ndax nit ñi mën a waaj ba mën a ñëw ne xëy tuuti wa taxiruha ak yéexal moom waxtu tisbaar lirum ilxaamati ba ca moom bu fekkee ne tisbaar la te mbooloo la ñu xam nga ngëneelal mbooloo lay bañ mu faat ki nga xam ne dafa nekkul woon ku pare ci njël bi muxtaar mi ci tisbaar ndax yooyu ñu waxoon léegi kon li gën ci mbooloo moomu mooy ñu bu dee tisbaar moom ñu yeexe ko ba ci ñeenteelu maanaam kaaru xaama bi doo xam ngeen luy xaama wisaadu def na dolli kaar boobu daañu ci dolli mu ne ni li shiddatil xarri ngir taru tàngaay obrido wa fiha jàngef li ci mu doona noonu di ba soppeef na taxiirul ishaai yéexe gee xalilan lu néew gee itam wuteeg li ñu bari ñu def ñi nga xam ne dañu bëgg ñu jullee timis toog ba julli gee pour dem reeri benn yoon toog dañuy julli ñaari ci njaal beenu muxtaar bi waaw li ñu sopp wala li gën mooy mu yéexe ko waaye du yéexe bu bari bu tuuti mu gën xëy na xam naa ngir ñiy dellu war a reer ak war a topp ay kii noonu way shakka dem si sàkk na moom mu kàlla fii du xool waxtu yi ci tàbbi waxtu yi waxtu tax jot na wala jotul lamtu gis du doy bu ko jullee du baax rek nga ne ko xanaa dafa fekkul mu jot fekk moom moo sikki sàkk rek mu ne bal wala wàq at doonte tàbbi woon na julli ga fii ci biir waxtu itam dootu doy ndax yàlla kenn du ko jaamu ci sikk looy jaamu rek na wér nga dogu ci te kenn yaa ngi sikki sàkk waxtu jot na wala jotul boo jullee du doy doonte après bëgg a sëlmale da nga xool muy waxtu jot na wala nit wax la ci digg julli gi ne la jot na du baax waxoon na al muxtaar léegi nag mu ne wax daruri daruri nag mooy li tegu ci muxtaar ba dal muxtaar yi gannaaw muxtaar lay doon dégg nga bu ndelloo ci suba day wéy di tuluwi ba jant bi fenn moom daruri bi ci subxi wala la xurub bu fekkee ne timis la day dé wala day wéy ba tey lil xurub ba ci sow jant ba fi zóore ni ci ñaar tisbaar bi mooy takkusaan ak tisbaar zoxre ni moom mooy lan kooku moom lañ ko tuddee te zoxre asra la loolu lañ ko tuddee waaye naxaw la de taxalib lay doon.
taxlib taxlib am na ay charte de ñun taxalib. waaw waaw am na.
waaye naxaw la noonu ñu sax la ñuy jàng nan def jënd yi tey dégg nga jënd yi tey si gas taw la yaa
إن ال... وابتي التغليب إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلاد na fekk ne lu góor la ñuy notal ci lu jigéen li gën a gàtt tur la ñuy notal ci lu ëpp tur comme Omar yi ni ñeel Abu Bakr nag Omar Abu Bakr dafa gudd am na laafe Abu ak Bakr tamit ko Omar di benn baat bu ñeel al Omara yi Abu Bakr ak Omar dañ ci gudd naka noonu suñu goxree ni ak liñ goxree wala asri goxr ak asri jiitu gi nga xam ne moom la tisbaar jiitu takkusaan moo waral ñu mën ci def def tax bi fekkee ne kenn ki jigéen la kenn ki góor li gën a bari ci nuxaat yi dàq nañu ñu def ko taxlib waaye toujours peut être bu amee góor gi la ñuy def taxlib wut na te fii taxlib daf am ñu def ko tasniya est ce que tasniya la mbaa tasniya la wala du tasniya du tasniya parce que dafa mel ni nekkul ci même kii waaw ndax tasniya dafa am taarif lafzun yadullu ala thnayni bi ziyadatin fi axirihi saalixin lil tajwidi wa atfu mislihi alayhi aleykum salaam lafzun yadullu ala thnayni bu ñu yemoon foofu lu mel ne chef chef dana dugg ndax ñaar lay tekki wala azaka wala yu mel noonu ñu dolli ci nag bi ziyaadatin fi axir yi alif ak laam bi ciy dolli ko nga xam ne kon zaka dana génn zëw ju génn zëw ju bi tekki ñaar ndax amul ziyaada boo xam ne alif ak nun la kon amu ko bi ziyaadatin fi axir yi dàq na loolu saalixin bi tajrid wa afu misli alayhi ñu mën koo def tajrid ataf ci moroom ne nangam ak nangam masalan mel na tey zuhre ni bu doon woon tasniya dëgg dañuy mën ne zuhrun wa zuhrun waaye duñu mën ne zuhrun wa asrun abu bakar ak omar bu ñu nee omar ani bu tasniya ndax kenn mënul wax omar ak omar ndax du ñaari omar benn omar ak benn abu bakar kon lafzun yadullu ala isnayn bi ziyadatin fi axirihi saalixin li tajrid wa afu mislihi alayhi mu ni kon wa walil xurubi yamin wa yamina waxtu muxtaar lil xurubi ca soga ci zuhre ni ci ñaar tisbaar mooy tisbaar takkusaan wa yamina lil fajr ba ca fajar astaadiq ji di aji dëggu fil achaa ni ci ñaari geer mooy timis ak geer wa tudraku
da ngaa jël cinquante mille jox sëñ bii ne ko daal kon léegi ni
watu dërëku def na jot fii ci mujjam moom daruri daruri yu boobu ak sopp suba ci kaw lan bi rakkatin ci benn rakka booru koor ba siggi su joon ñaari su jot su joon ñaari su jot jóg taxaw léegi mu ngi mel ne sa julli gépp julli nga ko ci biir waxtu bi benn waxtu ci ci benn rakka rek dina ci am waaye laa aqal la du caa gën du gën a néew rakka am na chob defe naa ni la mu ni sooru koo rek ba siggi nga xam ne rakka bi façon na mënatoo dabaatal dala ca gannaaw léegi am nga julli ada maanaam joox nga fayuloo waaye nag waaw waaye nag li gën a wér mooy rakka bi mat ak ñaari si jotul nga soog a am rakka boo amee rakka bi nag nag léegi mën nañ ne yaa ngi mel ne ku joox ndax rakka bi doy na dana la dugal si kii bi mu ni waaye wal kullu képp adaa un ak jox la waaye du laa aqal la de loolu lu gën a néew ab rakka de dégg nga maanaam ko daruri ak muxtaar bu ci nekk adaaw la du fay bala ngay fay muxtaar daruri day jeex nga ñëw nag soog a fay waaye su fekkente ne muxtaar jeex na waaye yaa ngi ci daruri booy kàbbar xam nga julli booy kàbbar da ngay yéene bu dee fay da ngay yéene waale fay bu dee jox da ngay yéene waale jox léegi bu fekkente ne takkusaan nga julli ba déedéet déedéet déedéet mën ngaa bàyyi wétar bi sax lañu digle ndax dañoo sopp ci julli guddi na tool te bi tool bi na mujj bu fekkente ne julli nga def chefa def sa vitre soo yewoo ci guddi bëgg a naafila te naafila par ñaar ngay sëlmal kon tool bi du mujj bu bu toolul bi mooy mujj chefa bi mooy mujj te vitre lañu sopp mu mujj ci julli guddi moo ëpp tuyaaba
di maanaam kon léegi boobu kon nga tudd léegi tey bi nga xam ne da nga julliwaat kon da nga julliwaat yaa ñaar ak doo ko ok. maanaam kon bu fekkente ne léegi noonu ñu waxee noonu la.
fekk witaroon nga ba pare fekk doon ko kon da nga julliwaat yaa ñaar ak doo ko mujjiwaat it.
boo witaree dootoo am lu tool parce que sa witar bee bu ñu ko boolee sa witar bii day daal nekk ñaari rakka mais pour ñu ko jàpp léegi maanaam muy loo xam da nga koy ilqa wala pour def ñaar wala déet.
loolu tax maanaam di gàttal li ma ko waxee comme sopp nañu ci julli guddi yëpp wiitar bu mujj benn rakka bu tool mu mujj tey na fekk ne dafa tool ñu sopp digle itam nga yéexe wiitar ba yeewu boo yeewoo dinaat la boo jullee li nga bëgg a jul lépp nga soog a wiitar bu fekkee nag léegi euh, da ngay yeewu léeg-léeg léeg-léeg nga tépp téppëral kii gudal ji nga jiital sa wiitar léegi soo yeewoo nga julli waaye nga neel faat na la nga neelal mujje wiitar faat na la te nga neel lu bari waaye daal gannaaw faat na la mu ñëwee léegi nga wetarat beneen déedéet maanaam nga julliwaat euh, ñeneen ñaar rakk ñoo mën nga ko mën nga junniy ràgga sax waaw boo paree nga déggoo defaat benn wiitar mu waaw ñëw.
waaye boo defee beneen wiitar itam amuloo nekkuloo ku julli lu tool waaw nekkuloo ku julli lu tool ci guddi ka julli lu tool moo la ëpp am bu fekkee da ngaa tëkkarle ba suba ba julli suba jot na boo jullee suba suba ci ban waxtu ci julli suba te fekk ci max ci njaalbeenu muxtaar mi la da ngay fay da ngay julli ñaar rakkaay fajar julli suba fajar nag moom bu fekkente ne léegi daroor yu dikk nga ci daroor yu suba da ngay julli suba bàyyi ba jant bi yëkkatiku nga fay fajar déedéet saxaa moom mën na mën na mat junni ñaaka waaye wéetak benn rek waaye saxaa moom mën na mat lu ne li nga julli si guddi lépp mën nañ ko considéré comme saxaa
bu loolu jàllee nag moom la ñuy jàll tamit nga laaj ko sax maanaam li nga xam ne moom lañu moom am na lenn lu wér lu ne moom lañ jëlee ci yoon bi ci wàllu nawaafil yi maanaam luñ liñ luñ jëlee ci moom lim boo xam daal bii la ñu wax ne moom lañ jël xadis bi gën a wér bi ñu jàpp mooy ñu ngi ko jëlee ci sayyidatuna Aïcha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam musul a julli ci weeru koor wala ci lu dul weeru koor lu ëpp fukki rakka ak ñaar yoo xam ne wiitar la ca teg loolu mooy li gën a saxaaba yi nag daanañ julli fukki rakka ak ñaar ci jàkk ji buñ delluwaatee seen kër ñuy julli ñaar fukk ak ñeent ñuy julli ñeent fukk ak juróom-ñett maanaam amul am li nga xam daal mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo di fukki raakaat ñaar waaye ba tey boo ko ëppalee itam terewuñ ko sibuñ ko terewuñ ko sibuñ ko
waaye daal waaw.
yoon bi defu noonu lu boobu daal déedéet moom la Seydina Aïcha wax la xadis gaa gis nga boo tax li xata xadis moom nekk lu kéemaane lu mat a dañ koy jàng te itam ñii ñoom dañoo jàng xadis yëpp ba bal ba seet gis nga euh, benn euh, kii Abu Muhammad benn waaye bu tudd Abu Muhammad ñëw na Bagdad fekk fi limaam Abu Hanifa fekk fi limaam Ibnu Shubruma fekk fi limaam Ibnu Abi Layla mu ñëw di laaj ndax jaay mën na ànd ak charte ñu njëkk a dem ci ibnu suburma ne kon ndax njaay ak charte mën nañoo ànd mu ne ko waaw mu dem ci ibnu abi layla ne ko njaay ak charte ndax mën nañoo ànd mu ne ko njaay mi ak charte yi ñaar yëpp yàqu nañu ko kee def ne ko njaay mi euh, ibnu suburma njaay mi wér na charte bi yàqu na kee ne ko njaay mi ak charte mi yëpp mën na wéy mu dikk ci limam abu xanifa mu ne ko njaay mi ak charte bi yëpp wér na mu dellu si waat nag waaw lii nag ku ci man waaru naa ñetti faqih ci benn masala kenn bokk ak sa morom wax naa delluwaat laaj leen ku nekk li nga li nga wax foo ko teg mu dikk ci kii ne ko yow foo jëlee li nga wax mu ne ko ndax jiw nee na njaay mi dana wér waaye charte bi dañ koy wacc jiw nee na njaay mi ak charte bi lépp a wér yow nga ne ñaar yëpp yàqu mu ne ko li ma mën a dégg daal diw nettali na ma jële ci diw mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne tere na njaay ak charte kon ñaar yëpp a yàqu mu dikk ci kii nettali ko mu ne ko man li ñu wax xaw ma ko waaye li ma leer moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jënd na ci man gëléem ak charte mu wéyal njaay mi wacc charte bi mu dikk ci ku mujj kii imaam Abu Hanifa wax ko la ñuy wax mu ne ko loolu ñu wax de man xaw ma ko waaye li leer diw nee na diw nee na ko sayyidatuna Aïcha yonent bi nee na yonent bi nee na ko sallallahu alayhi wa sallam ishtari burayrata washtariti wala aha fa innal wala aliman ataqa mu daal di kon nangu ñaar yëpp ñoom ñett ñëpp kenn ku ci nekk xadis nga sukkandikoo te xadis bu nga sukkandikoo lu am la lu jóge ci yonent bi mooy tax ma naan di gis nga xadis lu ñuy fànn bopp la bu ñuy jàng njàngum boppam ñii dañoo jaar ci yooyu yëpp bi ñu tëralee usulul fiqhi lañu nattalee jàng ñi nga xam ne ñoo solo xadis yi maanaam rijaal xam seen xaya seen dund ak ñi ñu dajee lool ak nañ ndax kenn ku ci nekk ki nga solo daañu xam ndax dund nga ak moom bokk ngeen benn dëkk wala déet wala gise ngeen wala déet xadis yooyu bi ci gën a bi ci gën a mujj mooy bu limaam abu xanifa ndax yi yëpp dëggale woon waaye nas day am xadis dana nasaxal xadis alxuraan dina saxal xadis alxuraan dina saxal alxuraan ndax nag xadis dana nasaxal alxuraan wala déet foofu la ñu wute limaamu Shaafi nee na xadis du nasaxal alxuraan limaamu Xasaali nee na xadis dana nasaxal alxuraan foofu la dégg nga mu ni nag kon
والإشاعة فضل الأقل waaw wala ishaani والظهران والعشاء والظهران والعشاء kullu adan wa duhraani ñaari tisbaar te mooy tisbaar ak taksaan wala ishaani ak ñaari gee te mooy tis timis ak gee bu ci nekk daañu ko jot bi fadl rakk atin ci ngëneelal ci sababu maanaam benn rakka boo am anilula mu jóge ca bu njëkk ba waaye lal axirat du ceegit mu mujj bi de léegi tisbaar ak takkusaan bu fekkee ne tisbaar ak takkusaan la jullee boo woo leen leen ba léegi lu ñu mën a jullee diggante temps bu ñu mën a jullee benn rakka rek moo des ci tisbaar gi nga julli am benn rakka ci tisbaar bi li ci des léegi jot nga tisbaar bi lépp nga julli ko julli ni takkusaan bi waaye lal axiira du seegeen bu mujj bu fekkee ne takkusaan la benn rakka rek des tisbaar moom da nga koy fay nga joox bii
dama koy fay jox bi waaw benn rakkaa rek comme tisbaar moom yéene ko la takkusaan benn rakkaa ci des léegi nga fay gis nga kon da ngay fay tisbaar xam nga moo jiitu xam nga ne julli moom fekk ëppul julli bés rek dañ ko war a toftale waaw dañ ko war a toftale fekk ëppul julli bés ndax bis bi daal li mu ci war a julli dafa war a toftaloo suba tisbaar takkusaan timis gee bu ko ëppee nag sooy boo jullee jiital bu la neex léegi euh, mm, tàkkusaan la wala gee mu des benn rakka gee maanaam al axira xam nga dafa ne luulaa luulaa waaye lal axira bu dee uulaa bi xam nga bu dee tisbaar ak tàkkusaan tisbaar bi mooy bu njëkk bi léegi mu des benn rakka tisbaar bi waxtu tisbaar des benn rakka nga julli rakka boobu xam nga kon joox nga tisbaar nga matal yaa ngi ci biir takkusaan léegi nga julli ci takkusaan xam nga boobu mooy bi nga xam ne rakka bi des ca bu njëkk julli bu njëkk la léegi julli ñaareel bi te mooy takkusaan moo des benn rakka rek kon tisbaar ak takkusaan ñëpp des na benn rakka ndax seen dañoo bokkaale seen ñaari muxtaar ba ca ispiraar ba léegi sa diggante ak ispiraar bi benn rakka nga fi mën a julli waaye nekkul ca waxtu wu njëkk wa muy tisbaar maanaam ci takkusaan bi la bu mujj bi xam nga kon benn rakka bi boo ko jullee eh, takkusaan boo ko jullee eh, tisbaar tisbaar boo ko jullee bu fekkee ne ci bu mujj bee doo ko julli tisbaar di ko maanaam ba noppi julli takkusaan ndaxte xam nga fa ñu bokkaale moom weesu nañ ko waaye léegi bu fekkente ne bu njëkk ba xam nga boo ca joxee boo ca desee benn rakkaat da nga ko mën a julli ba noppi yaa ngi ci biir bii bu fekkente ne bee daanaka jeex na ba benn rakkaat des ñoom ñaar ñu bokk ko te takkusaan bi ci ëpp doole léegi dootoo jot tisbaar ci benn rakkaat mënuloo ne am naa benn rakkaat ci li des ci ñoom ñaar bu ma ko jullee am naa tisbaar ma matal ko dal di ñëw julli takkusaan déedéet léegi perdal nga tisbaar jotuloo ko ndax da nga koo julli maanaam ci fay ndax li des ci waxtu bi moomuloo ko ndax takkusaan dafa dafa jeex moom it daanaka benn rakkaa ci des léegi kon amatoo tisbaar lu dul jo lu dul kii fay waaw léegi takkusaan itam xam nga boo jullee tisbaar boobu takkusaan boo ñëwee moom it benn rakkaa des woon jeex na fay la ñaar yëpp
man da ngay fay ñaar yëpp.
waaw waaw kala xalaatal dafa de ma reprendre dafa ne wal kullu adaa'un boo amee benn rakka ca la jiitu rek nga julli si ñoom ñaar yi maanaam wala bu dul ci benn rakka yi koo jullee ci zaruur yi wala nga julli ko ci muxtaar yëpp ku ci ne ada lañ ko tudde waaye du fay mun na nag wa zuhraani tisbaar takkusaan wala achaani ak timis ak gee bu ci nekk daañu ko jot bi fadli rakk atin ci benn rakka bu ca des anil lula mu dese ca julli bu njëkk ga muy tisbaar ja wala muy timis ji waaw waaye nal axira du caa génni bu mujj bi nag bu fekkente ne takkusaan see des benn rakka rek
man benn fi rek te ñu ñaar ñoo fi des.
waaw benn fi xaj te ñoom ñaar ñoo ci des xam nga léegi nga bëgg ne naa julli benn rakka bi ci tisbaar ma am tisbaar ma noppee julli takkusaan fay takkusaan doo ko mën jotuloo maanaam jotuloo kii takkusaan jotuloo ko ci jox tisbaar jotuloo ko jox doo am ñaar yëpp daal kon doo am léegi ñaar da yëpp ngay jëkk julli takkusaan doo ko fay tisbaar.
waaw da ngay julli tisbaar tisbaar da ngay jëkk génne.
waaw waaw kon daanaka war a fi fara illa wal waaw Ñaari wal ma bëgg bi nañ saani ay bi saani kon on waaw daanaka waaw ñu ne kon fay leen.
loolu kon ci dara su fekkente ne gis nga nit ki dafa amee nag ngant loo xam ne moo ko teewoon a julli xam nga dafa am ñaari kii ndax bu fekkee nit ki dafa am ngant loo xam ne moo ko teewoon a julli xam kooku dafa mel ne kon julli gi waru ko daanu daanoon defe naa ne xamoon ci bunt bi la xamoon beneen bi ci kanam waaye borom bi ngant yi daañu ko lim ba ñi nga ci xam ne daañu leen may na fuñ mën a sangoo wala ñu jàpp wala yooyu ak ñoo xam ne duñ leen ko mën a may ah dégg nga léegi bu fekkente ne nit ki dafa nekkul woon baaleex masalan xam ne kon julli waru ko wala mu doonoon ci ngirum Malik ku mel ne ki gaay nekk ci dàq ba mu yëg ci kaw garab léegi ngant loolu dañ mu war a mën a julli nag léegi léegi fekk na tàkkusaan ak tisbaar julli mu ci woon lenn xam nga léegi comme tisbaar moom daanaka moom ngantam topp na ko ba nga xam ne takkusaan rek a des benn rakka kooku tisbaar ji moom bu fekkee ngant la woon tisbaar ji xam nga waru waratu ko kon dootu mën a jot ñaar ñëpp ci ada ni ci julli benn rakka muy kon nottali tisbaaram muy ada mu mottali takkusaan ndax takkusaan wéy na kooku nag dafa fekk ne moom comme ngant la amoon moom moom daf koy wàcc daf koo wàccoon ba boobu loolu rek des ci te takkus te julleegul takkusaan dañ koy bàyyi loolu bu dee ngant li waaw takkusaan takkusaan ko yor war kon boobu takkusaan ko war waaw kenn war waaw takkusaan ko war waaye bu dee ak jàngate bopp moom ba nga xam daal benn.
waaw waaw waaw kañ kooku moom dañ koy xañ jox gi ci benn anam ndax lu yàgg-yàgg tisbaar la waroon a njëkk a jot la waroon a njëkk a julli waaye takkusaan war na ko te mu ngi bëgg a wéy moom it te dafa war a jiital ci jiitu mu julli tisbaar waaye amul ada kon moom tax na jox gi ci ñaar yëpp.
waaw kañ waaw parce que ñaar yi fay jeex bi rakka bi mujj ci rakka euh, bi nga xam ne moo des ci ci bu mujj bi wax te mu ne la damay dab ba léegi de bala moo faat léegi.
voilà du ko mën du ko mën du ko mën du ko mën dégg nga mu ne la ci mu nekk xaadir naka aji teew saafara ko tukki na yow yaa ngi woon ci dëkk bi nga jóg nag ne léegi da ngay tukki xam nga bi nga bi nga teewee war nga julli danga mën a julli ndax nekkuloo musaafir te dangaa war a matal itam ci taqdiir gii nag nga war a tukki yow bu jógee da ngay tukki fekk ñaari cili yi ñaari tisbaar yi wala ñaari timis yi rakka bi bi des ci bi mujj la comprendre nga waaw léegi sa ndox boobu sa tukki boobu mënuloo ne rakka bi des na ci ndax ñoom ñaar ñëpp seen daruur yi jeexagul mën naa kon julli bu njëkk bi dégg nga ba noppi soog a fay bi ci des wala julli bi ci des ci biir waxtu doo ko mën ndax léegi yow da ngaa tukki nga xam ne ñaari rakka nga war a julli waaye benn rakka des ci bu mujj bi dañ ne la yow ba nga tukkeegul yépp mënoon nga julli defuloo ko ba léegi yaa ngi tukki doo dëgg ci rakka boobu julli ñaar rakkaay tisbaar soog a nag commencé fay takkusaan gàttal ci waaw waaw kañ nekkee la woon waqaadi mi ne ak aji ñibbisi dafa nekkoon ci dox ci tukki léegi mu ñibbisi bi mu ñibbisee benn rakkaa des ci ci kii bu mujj bi eh, julli bu mujj bi julli ñaareel bi moom itam naka bi woon rek wa asima waaye bàkkaarat na bu fekkente ne bi muy tukki benn rakka des ci tisbaar ak takkusaan dana am bàkkaar ndax waroon na julli tisbaar ga julliwu ko ba boobu waaw dana perdre ni mu waroon a déggee ci benn rakka bi am tisbaar julli takkusaan dana ko perdre ba noppi te dana am bàkkaar ndax dafa waroon a julli moom balay waxtu wee balay lee jot balay am benn rakka wa asima illaa illaa li udrin dare balaa ngànt ba ngoog ko am ngànt bi nga ne ko ngànt bi nu mu demee mu ne bu kurim ci kéefar koo xam ne ki dafa tuubagul woon bay soog a tuub léegi léegi nag bu muy tuub waxtu yi ki lay ci des benn rakka ci des wa in bi nga ne ko xanaa dafa masoon a nekk yéefar naka njëkk ba mu juddoo ba léegi mu ne bal wa in bi riddatin donc dafa murtatoon dafa nekkoon jullit la qadar la dem murtat nekk yéefar ba mu yàgg mu dellu si di tuubaat kooku itam ñooyam ngànt la
te amuñu bàkkaar waaw waaw wasiban wala xaleel dafa baaleexagul woon maanaam puberté nekkul majeur daal ba loolu diggante boobu jot ci julli gi lu soog koy dal weeximaan wala dafa xamoon di soog a xamaliku ci waxtu wa junóorin wala ndox daf ko dikkal noonu ba waxtu woowu mu soog a xamaliku wa naw min dafa doon nelaw wa xaflatin wala mu sàggan te mooy fàtte mu ni mu ni religieux yi ci ñooñu nga xam ne dañoo dese benn rakka te am ngànt mu ni ka xaydin naka noonu reegal moom itam amul bàkkaar moom min ahadi ma fi lwaqt daruri wa sallat fihi fala isma alayha bu fekkee ne dafa julliwul xam nga dafa ne woon bu fekkee ne julliwul ci muxtaar ba ci daruur yu rek dana am bàkkaar fekk amul ngànt ñi nga xam ne am nañu ngànt ki nga xam ne nag dafa am régal ba diggante boobu ba nga xam ne daruur bi ñëw na mu soog a laab mu sangu mu julli du am bàkkaar waaye laa sukkurum di caa génn màndite de waa ji dafa màndi woon xamul fu mu nekk julliwul ba nga xam ne benn rakkaa des ci waxtu wi kooku moom bu ko jullee dana am bàkkaar boobu waa asamaan bi waxoon ci la waxoon léegi parce que lu tax
sàngara ko tere parce que moom li li ko dul moo ko def bopp moo ko teg boppam waaw sànga dañ koo tere te moo ko teg boppam ndax mënoon na bañ Mënoon naa bañ a naan.
waaw kay wal maazuru képp kuñ ci nangu ngàntam waxeeru kaafir ak ku dul yéefar bële yu xadaru def na nattale la foo ñëw ko atuhuru laab daañu seet bu fi mënee laab ndax rakka bi yooyu dana des rakka wala du ko des lu dul yéefar bi nag nga xam ne moom mënoon na te on mu tuub bu yàgg moom lañ koy wax mu xayru kaafirin fii moom moom fii waa Gowou mu def foofu géej gi ji géej gi. am lu ñu xalaat parce que fii ci saraab bi léegi tey. mu ne almaazuru ci saraab bi moom xam nga wa- defu ci wàgg yi léegi ndax moom bi nu wàll sax wala. moom dafa am yoo xam ne léegi.
waaw dafa ne wa- wal maazur bi waaw bi moo gën a wóor waaw moo gën a wax.
waaw mu ne wal maazur bi képp ku ñu nangu ngàntam waxeeru kaafiri te du mu yéefar bi ci ñi ñu li woon ñëpp ñi nga xam ne nangu nañ seen ngànt ni ki euh, kuf déet ku dul kuf ku dul wala ku dul siba maanaam ki nga xam ne dafa nekkoon lu woon baale ak ki xamoon ak ki nga xam ne dafa sayoon ak ki nga xam ne dafa doon nelaw wala mu sàggan ak yooyu waaw gi gi gi mu teg ci waxeeru kaafir gi wàgg ndax fi mu ne nii war na ak ku dul wal maazuru
léeg-léeg dañu wax sax moom li xaw a doon ndax kër yi dafa doon ndax léegi am boo xam ne léeg-léeg ci saraab bi dafa koy.
aw dana di am ki ay forte forte impression li doon axlaatu mutbaiya
amul fii.
waaw wal maazuru bi udrin mi ma tukira xaala kawnihi xayra shaxsin kaafirin waaw maanaam képp kuñ ci gàntal te du te du waaj même bu bu waal wi dikkul wal maazuru wal maazuru xayru kaafirin waaw
dafa am.
waaw.
li ci war a gis.
ah kay waaw ah kay bañ a indi waaw yi moo gën da ngeen di wax moom.
waaw ndax kaafir bi maazur la te moom lañ ci setti wala xanaa borom sukur bi yaakaar naa ne ni moom dong lañ ci war a seetal.
mu ne yu qadru def na tale la hoo ñeel ko atuhuru laab waxtu laab bu insaan na ndem jort na idraakahuma jot seen ñoom ñaar masalan tisbaar ak tàkkusaan faraka te mu rakka fa xarja te génn al waxtu waxtu wa xadaana fay al axiratu bu mu jub rek wa in tatahara ndem laab na dafa dem sangu ji fa ahdasa cangaayam toj yàqu aw tabayyana wala biroon adamu tahuriyatil maa yi ñàkk laabalug ndox mi mu doon sangoo aw dakara wala mu fàttaliku maa loo xam ne yu ratte bu ay julli yoo xam daf ko war a toftalee ni ki lu ko faat tëmutul juróom léegi wa ëppul juróom kon fal qadaaw day fay dégg ko de Hmm? dégg nga mu ni wa asbata rotalat na udrun ngant xasala loo xam ne am na dana rotal julli gi xayru nawmin lu dul nelaw wa nisyaanin ak fàtte dana lu muy nag lu muy rotal al mudraka julli wa- waxtu wu ñu jot wa waxtu nga xam ne bi nga génnee ci loolu fekk nga ko mu des lu néew doo ko wala mu jeex buru lii dafa rot doo ko fay bu dee ñii mu seetee nag da nga koy fay rotul kon rotul waaw rotul mooy wa asqata rotalat na usrun ngànt bu mu ci xasal bokk am na xayru naw min bu dee da ngay nelaw fekkee ne nit ki dafay nelaw ba waxtu wi passé dana fay du am bàkkaar rufia an ummati alxata wa nisyaanu umastukrihu alayhi lu dul su fekkee ne bi muy nelaw euh, sikki sàkk na ne waxtu wi mën na jot te du yow kooku kon bu bu waxul kenn ne ko nga yeema dana am bakkaar wa wa umira diggalee fat na julli sabiyun wa umira diggalee fat na sabiyun xalel bihaa ci julli li sabin ci juróom-ñaari atam bu amee juróom-ñaari at wa duriba daañu dóor ko di asirin bu amee fukki at te julliwul wa mu ni atreef na naflun nafila waxta tulu shamsin waxtu jant bi fenk julli nga soo ba noppi jant baa nga fenk daganatul nga naafila wa xurubiha waxtu woo xam ne jant baa ngi soo daganul la naafila wa xutbati jumatin waxtu woo xam ne ilimaan jaa ngi xutba ci kaw minbar bi jumaa ak juma araam na nga julli wa kurih si dee fit na ba tey julli
fii moom nag la ci waxat bëri jumaat bi kii est-ce que amul ci kii ku ñuy wax naan comment dafa mas a dugg jàpp ji lay fekk yoon ñu toog ci kaw kii bi laaj ko ba xam ndax kii nga julli nga def nga def lu mat julli mun ko dee mun ko jógal loolu waaw.
dafa des nga wax waaw yooyu yëpp waaw waaye weesu nañ ko dañ ko bàyyi dañ ko nasaxal dañ ko Dañ ko dàq nasaxal.
waaw dañ ko nasaxal wa kuriha si biir fët na julli ba'da fajrin gannaaw bu fajar feqee wa fardin wa fardi asrin ak gannaaw faratay waxatu tere nañ ko de yi passé dafa araamoon yi nag mu ne sib nañ ko bu fekkente ne fajar xas na feq bu dul farata la wa fardi asrin wala gannaaw faratay takkusaan nga julli takkusaan ba noppi dellu di julli waat dañ koy sib illaa an tartafee jëm ci ba yëkkatiku jant bi xiida romxin ca bu dee suba lu tolloo xeeju arab watu sàlla ak ca tàkkusaan mu dellu ci watu sàlla ak ba jullee fa almaxribu timis ba nga jullee tàkkusaan ba ba ngay julli timis boo jullee timis ba noppi sàññe naa fi la tisbaar gi itam euh, suba gi itam bi jant bi euh, dégg nga fenkee ba ba bu muy yëkkati ko ba tolloo guddaayu xeej foofu ngay soog a sàññe naa fi la waaye diggante bi doo ci naa fi la doo ci naa fi la mu ni ah boo jullee si- kon bu jant bu fajar xasee fekk daganatul nga julli lu dul farata mu ne ah illaa rakatayil fajri lu dul ñaari rakkaay fajar yi wal wird ak ab wird maanaam ab naafila boo daan def nga xam da nga koo baaxoo woon léegi nga nelaw boo yeewoo fekk defuloo ko woon may nañ la mu mel ne ñaari rakkaay fajar yi nga julli ko soog a julli suba mu qabla al fard ci la jub farata ji li naa imi ñi moom moom moom lay wax li naa imi ñeel aji na raw am na walis ko wa janaasatan no bu ngi lim ba nga yi nga xam ne nag moom terewuñ ko waxtu yooyu de- ci waxtu yooyu nga xam ne tere nañ ci julli wa janaasatan ak ak tàdd masalan jullee néew sañ nga ko wa sujuuda tilaawatin wala sujóot jàng alxuraan da ngay su- jàng alxuraan ba toll ci sujóot xabla waaye nag xabla isfaarin ci la njëkk jant bi nag set ba ci bay commencé yëkkati ko foofu nag day daal di dañ koy daal di tere wasfiraarin ak ba muy soon ci sowu wa qataa daggat na muhrimun aji armal bi waxti nahyin ci waxtu yu ñu tere léegi xam nga booy armal mm, aj da ngay julli boo armalee ba noppi da ngay julli ñaar rakka qul yaa ayyuhal kaafiruun ak suuratul Ixlaas yi léegi bu fekkee ne yaa ngi ci biir julli gi waxtu woowu jot da nga koy dog da nga koy dog ba waxtu dagal naa fi la soog a naa fi la wa jaasat dagan na julli fii nag am nay problème ak i mbaje mbaje yoo xam ne xam ne lu bari ñu d'accord la Cheikh Khalil fii wa jaasat dagan na julli bi marbadi baqarin ci yeewuwaayu nag maanaam gétt nag nga di ci julli mu ni dagan na aw xanamin wala gétt ay xara ki béy ki yooyu mu ni ko maqbaratin naka noonu ay bàmmeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na rëbb na suñu borom rëbb na yahut yi dañoo fab seen bàmmeeli yonent def ko ay jàkka ci julli ba léegi ñu denc néew ci jàkka loolu tax ñu tere ko gis nga fi moom Cheikh Khalil moom nee na dagan na bi maqbaratin Euh, waaye euh, man bokk naa si ñu xawul a d'accord ak Cheikh Khalil fii dégg nga hmm? bu fekkul maanaam lanam ah waaw bu ñu lalee dara ci kawam waaw ak boo xamee ne bii dafa maasaloo dañoo dem ba mu maasaloo dégg nga comme ni ñu wax ne alxabru xubsun laa yumsha alayhi maa daama fihi saahibuhu bu fekkee ne maasale nañ ko dégg nga te yoon wi amuloo weneen yoon dagan na nga jaar ci kawam waaye bu dul loolu bu amee jigéen nii du dagan nga nga jaar ci kawam ndax xubs la dégg nga féeg nit kaan yi bu fekkente ne itam dañoo lal ci kawam dara am na ñoo xam ne ba tey daganal nañu kon julli ko waaw ba ba ci kawam ba ci kawam sax ci saxal nañ ne doomu a lu mét bi sobe la lu dul doomu aadama xam nga doomu aadama coow yu bare ci am waaw ndax dana sobewu ci dee wala du sobewu nga ne ko xanaa bàmmeel yi ñu dagan a jullee xanaa dag bàmmeel yi jullit la ndax du ci musrikin ndax innama musrikoo dana jësun mu ne walaw du musrikin doonte walaw li musrikin doonte bàmmeel yi musrik la musrik mooy lan ndax tubaab bi musrik lañu musrik yi mooy mooy mooy paye yi rek
waaw léegi ndax borom diine yéen ci ne suñu toll nii ñun mën leen a jàppe ay musique bi ci li gën a bari ndax xam nga léegi léegi ndax dañ leen a classé ci valeur juif yi ak chrétien yi ñoo ëpp doole ñoo gën a am solo ci lislaam majuus ndax seen diine am na cosaan ak dëgg boole léegi boo reyee nasaraan wala majuus bokkuñu dee nasaraan bi moo ëpp dee yahud bi moo ëpp dee kii bi majuus bi nga xam ne moom diine ji ji mu nekk malaaka indiwu ko ci suuf ab yonent joxu ko ko yàlla diglewu ko loolu moo tax ñoo gën a néew xiima ci doomu aadama yi waaye maanaam ñoom ñoom ñu ngi ci kufru de amul sikk waaw ndax li- ndax laa nu farat benn ahad min rusul yi ku wedd benn yonent ci yonent yi rek yéefir nga waaw ndax ak- ak itam léegi lam yëpp ngeen fi ne ko waroon mu nekk ci daawal musrikin daawal musrikin waaw ak boole ko maaye waat bi la fi ne ko waroon mu nekk ci daawal musrikin waaw xam ne kufru bu dugal nañ xam nga kon foofu xam nga foofu teqale nañ leen te xam nga li- waaye maanaam ñoo bokk am na cadre bu leen yépp yéefar la ñu waaye nag waaye yéefar itam ala darajaati ndax yéefar bi nga xam ne gëm na ne yàlla am na gëm na ne yónni na ay yonent gëm na ne bis bu mujj ba dana ñëw gëm na siraat gëm na mbugalum bàmmeel nuroowul ak ki nga xam ne yooyu yëpp te taabal raas la ko def amul ci benn bu mu nëw wala mu xam ko sax benn dégg nga ñu toll ci au mus wala wala li musrikin ni waaw walaw lu musikin doonte bàmmeel yi yéeféer yooyu la woon itam wa mas balatin ak santaare mooy fu ñuy tuur ay eh, ndeefa ki nefere yooyu wa mahajjatin ak diggu yoon wa majzaratin ak rendikaay bërëb bu ñuy rendee ay naga ki xara ki béeg yooyu waaye yëpp nag in aminat ndim wóoloofu na ci sobe mina najis in amina dem yéenu na mina mina najis sobe bu nu wóoree nag sobe amu fi d' accord wa illaa bu fekkee ni wóorunu nag wala nu sikki sàkk ko ba tey tere nañ ko waaye bu sa jullee falaa aadata du ko baamu ala laxsani ci wax ji gën a rafet in lam waaye in lam tataxaqaq ndem dëgguwul bu dëggoo ne am na sobe nag booy sa jullee jullee rek wa kuri xat si bee fat na julli bi kani setin ca jàngu nasaraan ya mu ne waaye walam tuat deeful baamu julli ga de bu ci jullee itam wa ba tey bi ma ati ni ibrin dal nañ ko ci fii yeesuwaayu gëléem yi wala umi nag foofu moom doonte wóoroo foon na ci sobe itam wa fil aadati bu ci jullee ndax dana gàmmu dana baamu wala du baamu xawlan am nañ si ñaari wax wa man taraka ku bàyyi na mu fardan farata dafa dañ ne ko julli mu lànk bañ a julli takkusaan ba jant bi mu ngi bëgg a sëpp uxira yeexi fat ko ñu yeexe ko li baqa i rakkatin ba ci des benn rakka bi sa dëtee haa ànd ak ñaari su jóot ñe mu ne daruri ci waxtu daruri yi fekkee ne takkusaan la la bañ a julli ñu seet ba nga xam ne daruri yu bi wax muxtaar mi jeex na ñu ngi koy sant muy bañ daruri bi dugg ñu di ko sant muy bañ ba nga xam ne daruri bi benn rakka ci des boo xam ne boo ko rukkoo sujjóot ñaari sujjóot jant bi so ñu ne ko nag jullil ba tey mu bañ ci diggante boobu léegi ñu rek ko xaddan masalan daañ jàpp ne jullit la ndax nangu na ne julli war na waaye nangam la illa woo ba tey di julli na ne bàyyi fa laa na ne nangam la na ne nangam léegi suñ ko reyee daañu ko sànq sànq ko jullee ko yóbbu ko ca bàmmeel yi jullit ñe daañu jëgënal bàmmeelam ndax jullit la dégg nga waaye mu
mu baqa ay rakka ci bisi bëtee ay mën a doom lépp ci la bu ko defee mu rey ko nag rey ko nag gisoo ci ak bee ci xaddan xaddan moo moo seet loolu moo xam ne mbir bëtal wala xaaral bu fekkoon ne dafa waxoon nag ñun ana man daal af alu waaye bàyyi nañ ma julli dañ koy rey wala su nag dama fa xaaral af alu ya xaw ci bisi bëtt fa lay wax bëri mu ne wasalla julleet na alayhi ci moom rey faadilam ci lu mu aji gëm dañuy seet benn ñàkk solo rek su ko demee jullee waaye wala yëpp su dee pour maasale fa bu bàmmeelam waaye rek naa saa itam bu jagir aji faat de bu dugg faata ñu ne ko fayal mu laal duñ ko rey alal na sax ci wax dëgg la wér ndax ñu kon xëy na sax ay njëfu wal jaaxi bi aji weddi gi nag moom kaafir ñu yëfal ku la julli wér ku la di julli ko xam daal lay gën war a julli wala war a koor wala war a laab sax lenn ci li nga xam ne isma fas na ci ne lu lu lu jëri ci yonent bi la wala ci alquran wala hadis mu wér su ci yedd lenn wala nga yedd genn aaya ci alquran mu bokk ci mu rey la te yëpp rek lay kon du la san kon du la san kon du la suggee moo dul xëy na siyaan yi daañu wax ne am na ay aaya yu nëbb dañ ko indi ndax ñun ñu ngënee rek ibna ali kooku itam suggee la yoo xam ne dégg nga mën ñu ko saxal taarixiyan naka la ko mujj kooku ko xamoon ñun dañu jigéen ñi jigéen boo xam ne mën nañoo ànd ndey ci ñu dëgg bu ko ci ñuy dee def ñu ci def dal leen di dal seen kaw dal dañu ne sax leen leen uslub bi lu di dëkkal uslub alquran ak ñoom ñu jàpp ci sidna ñu ci nekk ko ci bopp ba ci genn bi ñu dem dañu alquran ni ñu ko kiwee alquran bu aaya yi daan wàcc muy taw guerre muy taw jàmm mbooloo mu bari ñoo koy teewe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee aaya bi yonente bi amoon na ay maanaam lu ñuy wax secrétaire ñoo xam ne ñoo koy jëlee